شنو قال يا بال أنا كنا أنا بني نت بقى قبقى أنا رحمة شكو قاري دون جردنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيوم بوكي طالب يب نيجي لندي زيارة بباح دي جاري تيوا اتبي نيو سنو خليف الهاجي كيبا سيسي دي كو نيالا يالا دولي اي فنم يوكو ورم te di ñaanal loolu mboolem njabootuk Cheikh Moussa gi ci zaaxir ak ci baatin ñu santaat yàlla bu baax ci bim ñu taw fee xale ba ñu dellu si waat di yëkkatiwaat ay kàddu jëm ci dañ bokk tey nag sëñ Massamba bëggoon ñu waxtaane ci shuruutu sixatu siyaam ak fadailu mi mooy eh, ngëneel yi nga xam ne koor am na ko ak lan mooy tax koor wér dañuy wax fi mbir yi tàmbale bañ xam koor lu doon ba noppi ak fu mu jógee su boobaa nag ñu door a mujjee ci ndax du ñàkk danañ xam njëriñam eh, ndax lislaam benn lislaam rek lay doon te yàlla lim santaane woon démb mooy lim santaane tey te ñi raw ci yàlla fiñ jaar ba raw ñëpp xam nañ ko ba tax na ku bëggati raw dootoo am sa yoonu bopp dangay fekk yoon bi ñër di rek nga jaar ci mbaa nga wàcc ko dugg ci ñeel li koor euh, daf fee yàgg koor lu fi yàgg la koor mboolem yonent yi def nañ ko amul benn yonent boo xam ne woorul yonent yëpp woor ñii daan nañ woor ñetti fan yi mujj ci weer wolof wu ne ñii daan nañ woor ñetti fan yi ci digg bi ñu tuddee ko ayaamul biit les jours blancs muy 13e 14e ak 15e jour ñii daan woor ñetti fan yi nga xam ni ñoo njëkk ci weer wu ne budul dul loola am na yeneen bés yoo xam ne lu mel ni ay bés yu nekk ci zulxijja wala muharram wala muy shahban muy ay fan ak weer yoo xam ne am na yuñ ci taamu yoo xam ne nit ki daf koy woor lu mel ni ashura ci la bokk lu mel ni bésu arafat ci la bokk ci ku demul aj yooyu yépp yonent bi salaatu alayhi sallam gis mu daan woor altine ak alxamis ak yeneen yi dul moom nga xam ne koor dafay lu rëy koor nag li tax mu mel ni mboolem yonent yi def nañ ko dafa fekk ne ngërëmal yàlla dafa am njëg te njëgu ngërëmal yàlla boo jàngee xoqal bu kaawu sëriñ bi andi na ci ñeenti yëf wax na ne ci ñent yef yoy moy fondement laaya sumtan wujuan wa saharan wa huzla neena neegu wi laaya da am ñent ponk moy nopi nga xamni kon bari wax kuy dem ci yalla du ko def fuñ la fekk yaa ngi wax lu nekk sa yoon nekk ci wujuan moy xif kon lek ba sour nan ba mandi ak nelaw ba doyal kenn du ko def dem ci yalla xif ci yoon yalla ya bok ci ponk yi la bok pour am wilaaya wa saharan jamu yalla ci guddi yi koo xam nelaw guddi ba guddi gi jeex mom ak wilaaya mom dana la jafe lol ndax nga bayyi ponkam wa uzlatan ak wéetaay ku ko bàyyi it fu ñu la fekk yaa ngi jaxasoo nit ñi yow doo nangoo wéet mukk yor sa kurus di fikkara loola itam ku ko dul def moom ak willaaya doo ca am dara kon ponk yi lii la mel ni kon ngërëmal yàlla lii lañ koy jënde léegi nag lu tax ba tey xiif sëñ touba dan na xifal mag ñi ñi njëkk a tërbiye ci moom ñoom sëñ mbàkki bu ci la bokkoon mas nay dajeeg soxna moomi doomi sëriñ touba la muy dox ngelaw li di ko ëf ba mel ni ngelaw li daf koy yóbbu comme doomu bàjjeen ak doomu nijaay lañ mu daal koy wax ne ko yow moom ñàkk nga kàttan di sëñ mbàkki bu sa daal di koy tontu ne ko nu may def ba du ma ñàkk kàttan bi may ñëw ci sa baay ab mbër laa woon waaye gis nga bi mu noppee ci man ni ma mel ne ko gis nga bi ma noppee ci man ni ma mel daan na xiifloo mag ñi ba dañ daan eh, eh, eh, kubéeru satala ndox lañ daan naan ak benn ngëbum ñam lañ daan lekk bés bu nekk loolu sëñ Tuubaa tarbiyaa na ko ay ba tàyyi loolu nag daa fekk ne nit dafa am ñeent noon ñu yàgg koo dégg seytaane bakkan duniyaa ak bànneex mu mel ni noon yooyu yépp dañ dajewaat ci benn te noon boobu daanoo noon yi ci des yépp dañuy daanu ndax kuy xeex ak ñeent noon kii féete la kanam kii ginnaaw kii ndeyjoor kii càmmoñ te na ci koo xam ne boo ko dóoree mu daanu ci des yëpp daanu kon da ngay dóor ki euh, ki nga xam ne boo ko dóoree mu daanu ñëpp daanu kooku rek ngay fexee jot nag mooy bakkan bakkan bu daanoo seytaane daanu bu daanoo bànneex daanu bu daanoo àddina daanu ndax yii dootuñ am bunt ci yow mënatuñ ko am su ko defee nag bakkan boobu bi ko suñu borom bindee borom xam-xam yi nee nañ yàlla daf ko andi ci kanam ne ko bakkan maay kan mu ne ko yaay yow maay man yàlla ah, mu ne ko waaw yàlla leen ma ko ñu tëj ko ay at yu yàgg ba yaakaar ne dana tuub ñu àndiwaat bakkan ci suñ borom bakkan ne ko yàlla yow yàlla ne ko bakkan maay mu ne ko yow yow di man maay man yàlla ne nañ ko dugal biir safara lakk ko ñu dugal ko biir safara lakk ko lakk ko lakk ko ay at génnewaat ko yàlla ne ko bakkan maay kan ko yaay yow maay man yàlla ne nañ ko xiifloo ñu xiifloo ko juróom at biñ ko àndee ci kanamu suñu borom daal di wax bakkan ne ko bakkan maay kan mu ne ko yaay yàlla yaay ki bind jaam yi yaay ku tedd ki man maay ko doyadi ki ku ñàkk fulla ki te ñàkk fayda te ñàkk solo kon mel na ni bàkkan ragalul safara bakkan ragalul ku ko dóor bakkan xiif la ragal loolu nag ni ko suñ boroom bindee moo tax yàlla mi ko bind moo xam ni mu ko bindee yàlla it moo xam ay saafaraam su ko defee nag moo tax boo delloo ci téere sëriñ bi yëpp li mu lay wax noonu doomu aadama yi daf naan la noon bu ne amna ngannaay lo xamne ne bu ko fabee dana la toroxal waye yow am nga ngannaay bo xamne ne fabé toroxal ko su ko defé nak bakkan kep ko xamne da ngay lek bu suur di nan ba mbandi di nelaw ba doyal yaa ngi sa bakkan waye kep ko xamne ne yaa ngi kenn gënu la mën a sa bakkan ndax mo ci gëna gaaw mo ci gëna yomb ndax moy yoon bi jaar bu mën ko jekku ndax lu nekk fa jaar bakkan nak fofu lañ koy jaar moy xii loola benn la ci cosaanal koor loolay tax nag ba tax mboolem yónnante yi suñu borom sant leen ko leneen itam mooy toroxlu ndax xiif te yàlla tax lenn ngi noonu ci wàllu lan moo tax xiif lan moo tax koor yonent bi salaatu alayhi sallam daal di ñëwaat daal di wax ne nee na képp koo xam ne moo gën a néew lu muy lekk ku la gën a néew lu muy lekk moo la ëpp leer daldi wax ne na ngeen bëri lu ngeen di xiif ndax eh, seytaane day daw ci yaramu doomu aadama ci biir ay siditam ni ci deret bi dawee noonu la seytaane dawee ci biir siditu doomu aadama ne na ngeen ko tëjee ci xiif maanaam nooy xiifee seytaane day lot ci dugg ci sa biir yaram ak di daw ci sa biir deret loolu xiif saafara la ci te yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu wax lu am la du ay waxu fo ma waxaat la ni la lan moo tax nitu yàlla yëpp tànn xiif jaar la ci seeni taalibe defe naa jàng nañ alxuraan ايبو سيو بوبو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والجوع صح لم تسخلون يلا نينا دانا نجان نقطو ولنبلونكم بشيء من الخوف تي لولن دي راغال لو لولن دي تيتال من الخوف والجوع اقيف يلا دانا كو نتو نيت كون لتاخ يلا ديكو نتو نيت كون دارا لا su ko defee nag eh, koor foofu la jóge comme nag nit ki góor góorgóorlu ba xiifal sa bopp te jëmmi suñu borom rek tax daa xaw a jafe mu mel ni suñu borom daf ci tànn lenn mu farataal ko ci ñun comme ni mu ko defee ci ñu njëkk ñëwoon ndax wax na ne niñ farataale koor ci noonu ñu ko farataale ci xeet yu jiitu woon yépp kon yàlla daal di faratal koor ci nit ñi lum ci jublu nee na ta tattaqun dama bëgg ngeen ragal yàlla kon ndekete koor day ragaloo nit ki yàlla te yàlla daa bëgg ñu ragal yàlla kon moo tax mu farataal ci ñun koor su ko defee nag loola day lu am solo te mata bàyyi xel nga gis ne ponki lislaam juróom la tudd baatu seede bi wax la jëfee lu ci topp mooy julli mooy nga jël ci sa temps te yëngatu te jëmmi sama borom rek tax joxe asaka mooy nga jël ci sa alal joxe la ca topp mooy euh, or weeru koor mooy ngay xiif te yàlla tax ndax yàlla jaram na la ko ndax boo ko deful ci yàlla yaa ngi koy def ci leneen juróomeel bi mooy nga dem màkka te mooy tukki mu mel ni bëgg nañ nit ki génn këram bàyyi ndey bàyyi bàyyi bàyyi jabar fas yéene tumuranke te jëmm suñu borom rek def ko ndax bu ko deful te yàlla tax dana ko def leneen boo xoolee ko lislaam juróomi ñoo ko tënk mooy tukki mooy xiif te yàlla tax mooy nangoo tumuranke mooy joxe ci sa alal mooy jël ci sa temps jox sa borom waaye li ci des nag wax la comme nak yi moy juromi ponk l'islam kon xif amati cieur bu reuy bok ci ponk yi gëna reuy nga gis ne it yonent yalla musa alayhi salam kër bi muy dem ci boromam yalla jox ko rendez vous ñu war dajé dajee amé fan wéri fan ci xif la nekkon di wor ci wor gogu ci la dajé boromam lu sun borom chartal ko pour mu xif pour mu wor pour mu mëna dajé ak mom bim demé ba sun borom feñu ko it gis nga ci koor gi dem na ba sun borom feñu ko bim amé amee fan muy wax gémmiñ ngi xéñ mu am kersa ci digganteem ak boromam mu dem di yey ay ñax ba yalla nako ko kan mo la wax nga dog watal mu daldi worat fukki fan tek ci muy ñen fukki fan kon ndekete woor danañ ko wuté yalla woor dañ koy wuté yalla woor dañ koy terbiya woor dañ koy demee ci yàlla te loolu mooy xiif te boobu yàlla farataalu ko ci xeetu Muusa waaye def na ko ci Muusa farata ndax Muusa daa am lu mu bëggoon yàlla na ko boo ko bëggee da ngay xiifal sa bopp kon nag loolu war nañ caa mën a déggee ne kon ba léegi nit a ngi wut loo xam ne ci yàlla bu xiifalul boppam donte ñett fan la mbaa ñent fan la mbaa fukki fan la mbaa ñaari weer la am na looy wut ci yàlla loo xam ne doo ko am ndax loolu mooy njëg yi sabab yii nag bu ko nit ki xamee kon dana tax mu xam ne kon koor du ay caaxaan te su boobaa amul kenn kuy wooye sa bopp aarif koo xam ne danga ko danga ko amul kenn kuy wooye sa bopp koo xam ne dinga ko woyofal ndax dangay xam ne mboolem góor yàlla ay jaar nañ ci su ko defee loolu moo andi koor gi nga xam ne fanweeru fan la koor nag ñu tuddee ko as siyaam eh, ci wàllu sharia mooy téye sa bopp ci lekk ak naan ak lépp loo xam ne day yàqu koor li ko dalay fajar ba jant bi so waaye koor nag tur bi li muy tekki mooy gàttañ gàttañlu mooy téye sa bopp ci lépp loo xam ne amul njëriñ ci lépp loo xam ne dafay lore baatu siyaam loolu lay tekki waaye ci wàllu sharia nag mooy bàyyi lekk bàyyi naan ak lépp loo xam ne dafay yàqu koor li ko dalee fajar ba jant bi so mu benn nag ngëneel yi war na mën a tax képp koo xam ne ngay wooye sa bopp aarif mbaa nitu yàlla mbaa jullit nga war ko mën def ndax e, koor yonent bi salaatu wa nee na ak pak ni mu mel ci xare mooy li ñu tuddee bouclier nga xam ne bu ngeen di dóorante jaas yi loolu ngay baaree ni mel ba fet du la dugg mba jaasi du la dugg koor ni la mel ci mbugulum safara yent bi sallallahu moko wax kep kuy wor yàlla dana la musal ci mbugulum safara muy ben mbok la ci yent bi sallallahu alayhi salaam wax ni kep ko xamne ne na fan kep te jëmmi suñ borom rek tax yàlla dana suril jëmmam juróom-ñaar fukki atu safara amna hadith bu ne 70 degrés soixante-dix degré moom mu ngi mel ni nga jublu woon safara rek ne ko jàkk boo wooree benn fan képp te jëmmi suñu borom rek tax yàlla dawale sa kanam puus la ba nga gën a sori safara noo gënee woor mu gën la puus ba nga sori safara safara nag bu ñu ko waxee nekkul luy tàgg mais mooy bépp fitna bépp lor bépp tolof tolof day dugg ci biir safara te koor daf ciy musal nit te nit ku nekk ragal nga coono ak fitna te koor da lay may loolu kuy worit waxtu wi muy dok lum ñaan yalla mu defal ko yontu bi sallallahu alayhi wasallam neena ki wor bay dok na ñaan ndax bu ñaané yalla day nangu ñaanam ta ku nek amna lo bëgg te yalla nga koy ñaan te bëgg ñu nangu sa ñaan koor day tax ñu gaaw nangu sa ñaan waxtu wi ngay dok nga profité ci ñaan yowmal xiyaam nit ñi danañ xiif danañ mar yonent bi saa saa su nee na gis naa benn waaye ci sama xeet muy daw di wut lum naan fu dem pour naan rek ñu tëj mbalka ma fu mu dem pour naan rek ñu tëj mbalka ma mu mar lool di xixat nee ma gis woor gam daan woor woor gi daal ñëw daal koy may mu naan ndax loolu ay fola wala waxu zaaxir la mat naa bàyyi xel mu waxaan ne yëmal xiyam am na benn bunt boo xam ne pour dugg àjjana la workat yi rek fay jaar ñu tuddee ko baabu rayaan mooy bunt bi nga xam ñi seen put wow kong ñu ngi leen fa tegal lu koy tooyal boo déggee rayaan mooy rafraîchissement lu mel ni ay boisson yu mel ni ay ndox yi sedd loolu mooy rayaan mu am bunt boo xam ne ña doon woor rek ka cay jaar bu ñu xasee ba dugg dañuy tëj bunt bi ñoom ca lañu jaar pour dugg bi aj keneen dootu ca dugg nag yi rek fay dugg wax dëgg yàlla kon ndax ñooñu kon yàlla beralu leen ndax yàlla beru leen beral leen koor am na ay ngëneel yoo xam ne yi ci wàllu ruux la yii ci wàllu société la yii ci wàllu jëmm doomu aadama la yonent bi salaatu alayhi wa jàngale na ko koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na saw mu nisfu sabri as-sabru nisful imaan as-sawmu nisfu sabri koor mooy xaaju muñ koor xaaju ngëm la te muñ xaaju ngëm la naka noonu it euh, koor dana def ci nit la ñuy tuddee autodiscipline boo seetloo bi nit ñi wooree dañuy yaru ndax dañuy mel ni lu tayal tayal googu day xaw mel ni lu jur ci ñoom yar dañuy daw coow ku nekk dafay bëgg a beru koor it bokk na ci li ëpp solo li muy def ci nit mooy ragal yàlla ndax boo wooree da ngay moytu lu bari ñu woor dañuy moytu lu bare bari bari bari loo xam ne bu doon sonn koor duñ ko def te it loolu la ci suñu borom jublu ndax ba mu ne kutiba aleykum siyaam kama kutiba allazina laa la laalakum tattaquun damaa bëgg ngeen ragal yàlla moo tax ma farataal ci yéen koor comme na ma ko farataale woon ca ñu jiitu woon kon lii ci ruux li jëm ragal yàlla gi muñ gi dëggal gi teggin gi ci ruux la jëm te loolu koor da koy defal nit day yar nit te aarif bu ne luy dundal sa ruux ak lu koy tinki ak luy yombal dem gi muy dem ci boromam moom nga bëgg ñaareel biit mooy bokk na ci ngëneel yi nga xam ne koor am na ko mooy ci wàllu wérgu yaram ci wàllu wérgu yaram danga gis ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne suumu tasixoo woor leen wér yonent bi ne woor leen wér kon jàpp nañ ne bépp feebar mën na koo faj te it am na ci ay hôpital yu bare bari ci Europe yoo xam ne xiif ak woor ci lañuy fajee lépp lu ñuy faj ci lañ koy faje kon xiif baax na yonent bi saa saa kon lim wax lu wér la naka noonu it koor dafay laabal biir ni ngay jëlee loo xam dafay raxas sa biir moo xam ay saana ci ne moo xam ay bactéries ñoo ci ne moo xam sa butit yi da ngay seere lépp koor daf koy raxas ba mu set lu bari lay def ci nit ci wàllu jëmmam kon loolu avantage la ci fadaa ilu saw mi ci la bokk naka noonu it bokk na ci avantage yi nga xam ne koor am na ko ngëneel lim am mooy ci wàllu société koor dana sabab nit ñi danañ bëggante dana waral dimbalante dana waral ak sarax dana yóbbu nit ñi ci ak mbaax ci seen diggante kon yii dafa bokk ci njëriñ yi nga xam ne koor am na ko bokk na ci ay njëriñam yonent bi sallallahu alayhi wax na ne nee na julli yi julli yi maanaam waxtu julli yi julli yi juróom neena àjjuma ajjuma ba ajjuma ak ramadaan ba ramadaan nee na dana fomp bépp bàkkaar bu fekkee nit ki moytu na kabaa'ir yi mooy bàkkaar yu mag yi bu ko nit ki moytoo nee na julli gi muy julli waxtu yu juróom nee na àjjuma ba àjjuma mu julli ko nee na ramadaan ba ramadaan mu di ko woor bàkkaar bu nekk ci diggante bi dina ko dina ko effacé ba mu des nag kabaa'ir yi te nag bàkkaar yu fomp ak bàkkaar yu wàññeeku ndax xol du ci laabee ndax ruux du ci tinkee ko ndax nit ci gëna a boromam ndax bari na lu nit di wuti amu ko fekk na bakkar yu bari rek ko ko japp te bu ñun tuubon mu kon koor yoon la ci yoonu tuub su ko defé nak kon fofu la ñuy yem ci walu njir ñi nga xamni koor am na ko euh, mu melni ci charte yi charte koor ku nekk xam na amul xel yéegu boo dul jullit santu la dara boo dul baalix santu la dara di la ko forcé boo wérul it la dara di ko forcé ndax li nga mënta ngay def rawatina sharia li Cheikh Moussa daan wax boo mënee defal boo mënul bàyyi koor borom xel la war warul dof warul xale bi nga xam nekkagul majeur waru ko loola ci chart yi tax koor wér ci la bok moy da ngay doon julit bo doon julit waro wor da ngay nek borom xel ndax dof du wor bu woré it konté wul ndax amul xel ta ko amul xel islam yegula da ngay nek balé xalé koor waru ko waye bu amé juróom-ñaari at jangal ko diina da jaadu fukki at mu diko def bu ko deful nga dóor ko waye nak ñak ko def am ca bàkkaar lola mu ngi koy dalé ci bu amé fukki at ak ñett ba pare koor kenn du ko def te wéroo ku wér la alxuraan wax aay yi ñëw nañ ci ba tàyyi naka noonu it koo xam ne daa gis mbaax jigéen ju gis mbaax waru la ba nga wàcc nga fay kuy tukki dafa nga jëm mat 80 kilomètres ngay tukki antanoo tukki bi ak koor bi distance ba ngay daw mat 80 kilomètres am na ci ñoo xam ne 72 kilomètres ndax wàññi julli ci waa Touba 72 kilomètres la ci waa Mali quatre-vingts kilomètres quatre-vingt-un kilomètres la kooku koor wàcc na ko donte nag ci biir tukki sopp nañ nit ku xiifal boppam waaye bu dee ci wàllu koor dëgg-dëgg bu naree metti ci yow nga lekk naan ngi ci des nga fay sa koor bu fekkee distance mat na quatre-vingts kilomètres naka noonu koor warul ko feebar koor it warul mag moo xam ne am na juróom ñett fukki at te mënatu ko bu ko mënee mu def ko bu ko mënul wàcc na ko dafay joxe lekk naka noonu it jigéen joo xam ne dafay nàmpal mbaa jigéen ju ëmb te mënta boole woor ak ëmb gi mbaa woor ak nàmpal naka noonu it daf koy wàcc remplacer kook leneen pare mu fay walla nit mu àgg ca ba joxe lekk nar ko caa fekk kon yii dafa bokk ci chart yi bokk ci ñim war ak ñim warul bokk na ci li tax koor di war nit nga xam ne moo koy wéral mooy yéene xam nga yéene moom daa foor ci lislaam ba bépp farata bu ci yéene ñëwul moom loola yàlla amu ca soxla gis nga buñ lay jiite julli sax ki ñuy jiite julli waxuma kii imaam bi de waaye maamoom bi nga xam ne moom lañuy jiite julli bu ñëwee te yéenewul ne dañ may jiite bu julli amul julli booy jàpp boo yéenewul ne da ngay jàpp teggi toj mbaa daganlu ak jaamu yàlla boo ko yéenewul boo jàppee amoo njàpp yaa ngi mel ni ku raxasu rek ndax yéene bi mooy tàqarle tooyal sa yaram mbaa raxasu wala jàngu ak jàpp naka noonu it bokk na ci liy tax koor wér mooy fajar ngay tàmbalee woor te boo mënee yéex xëdd nga yéex xëdd tey tànk yaa ngi sikki sàkk naan waxtu yu jot naam jotul lekkal naanal tànk yaa ngi sikki sàkk naan waxtu wi jot na wala waxtu wi jotul lekkal naanal ba nga gis ne leer na loolu la téere yi wax yéexi xëdd nag daa bokk ci sunna bëgguñ ko teel xëdd ñàkk xëdd yi wóorul yonent bi sallallahu alayhi xëdd leen barke moo ci ne neena li wutale sunu woor ak wooru ahlul kitab moy yahuud yeeg nasaraan moy xëdd yonent bi nee xëdd du forcé nak waye def ko sunna la ku ko mën def def ko su ko defee nak nit ki woor nak liko dalé ba fajar ba jant bi sox téla dogit da bax téla dog ni yéex xëdd dog ni la baxé su ko defee nak bu dog joté nak nga dog ba nopi dooru julli timis kon nag tey fii la ñu yemale waxtaan bi wax dëgg yàlla ah, ah, ah, njàngale mi yépp dafa xaw a jëm ci loo xam ne mbiru zaahir la ndax koor ku ne xam na ni ci wàllu sharia la te mm, aarif yu bari fonkuñ ko fonkuñ sharia ba tax na yu bari duñ ko fonk waaye nag eh, bu ñu xamee cosaanam xam ne ñi baax ñëpp defoon nañ ko xam ne yoon la ci yoon yàlla yi loolu du ñàkk dana tax ñu mën koo fonk ndax dañ ciy wutee ngërëmal yàlla su ko defee nag li nga xam ne yonent bi yëpp wax na ko lu ne rek mën nañ caa xool baatin ba suuba mën naa am woyofal giñ ko doon woyofal dootuñ ko woyofal yal na yàlla sàmm nañu suñu pas-pas yal na yàlla may ñu mottali koor gi ci jàmm tam nangul ko feebar bi nga xam ne moo lëmbe àddina ba tere ñoo daayira ak sikar ak def sunuy jaamu yàlla ci biti bu koor gi dem yàlla ba mu ko fi bàyyi bi jaaxi rasulillah barke cheikhul xadim barke borom daaru barke weeru koor bi suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam